gars yi tey petit poids ngeen di am 14h15 diggante Barcelone ak équipe bi la nga xam ne mooy Real Madrid gars yi match boobee moom ngeen di yondoo ci télévision bi nga xam ne mooy la vérité TV Aladji Malick TV information yu te wóor ah, bàyyi leen nu xel bàyyi xel tirage ya nga xam ne wala boog ya nga xam ne mooy am ca YouTube ba ak ca groupe WhatsApp ba YouTube bu ngeen àggee ah, daanaka ah, ki war a gagné ci match boobee mën ngeen koo joxe 1 bi mooy Barcelone 2 bi mooy Real Madrid même groupe WhatsApp ba foofee tamit daanaka danañ def la nga xam ne mooy pronostic boo xam ne gars yi fexe ba kenn comme ci man di noon la muy wax na nga ko xam ndax fi mu toll nii Barcelona ak Real Madrid victoire yi bari na kenn comme ci man di doon ginnaaw yëgle bu am solo. population de Thiès xibaar bu cuqur mbuuc yow mi doon tabax ceer teg bagage yi seer ba nga mujj bàyyi ko gars yi tey ba tey ba yi andi nañ ci xéewal goo xam ni uh, gu mucc ayib la uh, Moussa mi nga xam ne mooy seera bi ànd ay rek am ñu ci mel ni ñoom Ousseynou ak ñoom Assane uh, daanaka lépp a ngi tolloo ci marché central bu Thiès gars yi bagage yi kenkaayri kenkaayri général la ñu teg ci taabal ji lépp loo xam ne jëm na ci xeetu tabax maanaam nga commencé ci commencement fondement bañ lay jox say caabi monteel la say toilette monteel la sa li nga xam ne mooy ay buntu monteel la li nga xam ne mooy ay lampe plombier ak lépp loo xam ne jëm na ci xeetu peinture boo xam xam ni mucc na ayib ñun tey ba tey bay am nañ ko ñu ngi ci marché central bu Thiès numéro téléphone yaa ngoogu yow mi nga xam ni xamoo fa boo ñëwee ba ci marché central bu Thiès euh, foo laajte la euh, jàmbaar yi tey ba nga xam ni liggéey lañ xam moom la leen askan wi xamee tey jaamu soxlay askan wi ci njëgu yomb moo leen tax a jóg bagage yaa ngoogu fer beeg ciment beeg béton bi ak lépp li mu war a àndal livraison yi euh, dana gaaw njëggi yomb na lépp a ngi tolloo foofee ci tey ba tey bay fàttewun yu bees yi nga xam ni yu yees peq la ay salaire nag yéen ñi ne salaire yi ma ngay dàbbar ñi ko foofee nga xam ne daanaka mooy tay ba tay bay maanaam ci gàttal mboole seen lépp lu ngeen bëgg am na fa moo leen di may xibaar yu am solo yi revue de presse bi ginnaaw g yooyee daanaka lien groupe whatsapp bi sax pour ngeen bokk ci li nga xam ne mooy boobee pronostic mën ngeen ko am ci commentaire yi ci youtube bi gars yi tënk lay doon rek waaye revue de presse yi daanaka dañu koy tënk rek marquage yëglikaay réeti yi nga xam ne ñoom ñaari gone yi kenn ku ci ne réeti nga ko gone Barcelone yi ña nga ca côté càmmañ ba gone Real Madrid yi ñi ngi ci côté ndijoor bi ndax Barcelone mooy dalal ci as yëglikaay Lamine Yamal mu taxaw ni jonn daanaka mook Vinicius Junior ñooy ponkal yi nga xam ne di ay gone a ca match boobee nga xam ne du yomb benn yoon as yëglekaay andi mboole seenub équipe bi andi tiktak des yi andi li nga xam ne mooy xaar gars yi 14 heures 15 heures Sénégal waaye nag marka kaay moom wala Mundo Deportivo kaay moom li mu andi ci xëtam mu njëkk Barcelone la teg ci taabal ji ak Real ruling la wax tekk jóg ci li nga xam ni mooy match bu dul yomb benn yoon match boobee Mundo Deportivo La Coruña gën naa yaatal yëglikaay bi bu ñu ko ubbee ca kanam tuuti danañ ko forom fàcce bu baax a baax waaye gaa yi na ñëpp bàyyi xel programme yi nga xam ne gaa yi tey jii moom lan teg ci taabal ji du yomb benn yoon tey jii programme bi gars yi coppati ci Aladji Malick TV Vérité TV bëgg nañ leen gunge ba dara du leen rëcc ci li nga xam ne mooy information yi def leen seen i abonnement